mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñu seetaan Tanime TV tey ñu ngi fii ci marché Ocass ci garage su sareet yi nga xam ne moo nekk fii ci marché Ocass ci wetu kër sëñ Mahmadan Jobbe ñu fas yéene ànd ak ki nga xam ne mooy chef de garage bi di sëriñ usmaan Sall sëñ Ousmane ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare. jërëjëf ñoo ngi lay siyaare bu baax euh, di ñaan suñu borom defal ñu jàmm te di jiital ci nuyoo boobu sëñ Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér. te jàppale nu ba lépp lu nu bëgg a liggéeyal sëriñ bi ñu liggéey ko ci ni ci ci teeju ba kañam ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la nag ñu ngi lay sant bu baax ci reportage bi nga xam ne yaa ngi ko bëgg a fii tey ci sare garage su saretu kër sëñ Mahmadan di déparé marché Ocass di dem di di déparé kër sëñ Mahmadan di dem marché di dem garage Daaru Moussi ñu lay nuyu baax di la ziar te di la jaajëfal bu baax a baax di ñaan nag suñu borom defal ñu jàmm ba lii ñuy def nii ñu tàmbali ko ci bisimilah rahmaani rahiim te eggale ko ci alhamdulilah rabil alamin sëñ Ousmane mën nga na wax garage bi kañ la sosu ak nga dellusiwaat ci présenté nu sa bopp bu man man nag maa ngi tudd Seydina Ousmane Sall nekk conseil municipal aussi nekk président du commission de bi nga xam ne moo jiite 22 délégués yi nga xam ne ñoom ñooy commission bi jiite sari ci Touba commission bi ma ne nii mooy commission marché ma seq ko ku ñuy wax Modou Ndiaye man conseil municipal la en même temps nekk président président fédération euh, GIE en même temps bokk ci commission boobu bokk ci ci jëwrin yi garage bi nag euh, mi ngi sosu 99 lañ sosoon garage bi kat depuis 99 ba léegi nag ñu ngi fi de débouché wuñ jëm fenn mais lépp loo xam ni lu yëngu ci saret la euh, suñu borom boole nañ ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo koy doxal waaw sareeti mbaam agri ak yu wala sareeti fas donc euh, euh, composant bi ñu yor nag yëpp la boole maanaam commission bi ñu yor sarti mbaam yi ak sar fas yi la boole waaw commission bi ñu jiite moom nga xam ne moo moo jiite 86 euh, gara yi ci dëkk bi nekk 30 000 charretiers 18 000 yi fasu ay fas lan 12 000 yi ay paam mbaam lan commission boobu nag ñoo maase ñu jiite ñoo ñoo ñoo jiite mboolem sart yi ne ci dëkk bi. 12000 wax nu ci lim bi ci ci wolof ñu gën koo comprendre. est que du ñaari ñaari junneeg ñaari junneeg ñeenti téeméer mooy mooy mbaam yi. ñetti junni ak juróom ak juróom-benni téeméer di fas yi. daw fii ci Touba. loolu ban eh, kii kii ngeen de recherche ngeen de ba xam ko. non dañ cee defoon ay ay ay gëstu en même temps dañ cee defoon ab recensement moom moo nu may foofu ñu mën faa yegg. kon jërëjëf eh, kooku dafa mel ne rangam day bëgg kon ñu ñëwaat ci beneen saret bi ngir ñu àggale li nga xam ne moo di na taxaw noonu rek waaw waaw. léegi bi ngeen di tàmbali fii ci saret yi ñaata la tàmbali woon quatre lan nga wax ne moom la garage bi dugg. garage bi ko ngi ko ñu ngi ko commencé 1999 lañ ko commencé. 2000 da approximativement 2000 lañ sosoon garage bi. 2000 ba léegi nag ñu ngi fi. organisation bi fi am ñun ñoo jël ay engagement ànd kooku nit. ba mën a tëgg organisation boobu nga xam ni daanaka boo dee xool ci biir boobu ci la saret yëg tënku ba ci lool la di dox actuellement ci Touba Mbacké. maire bi moo leen autorisé ngeen def fii garage wala kan moo leen ko. non autorisation maire bi nag ci garage yi moom existé gul mais nag avant maire bi di autorisé ci garage fekkoon na garage yi moom dañ fee nekkoon avant loolu mais bi ñu ñëwee ñoom dañ koo gën a dëgëral gën koo dëgëral mooy fexe ba kenn côté bu nekk ñafa di liggéey ñu jàppale leen ban man faa ne liggéey. waaw transport bi nag daanaka li ci ëpp lu ñu fay 100 francs la rombagul 100 francs bi xëy na fukki dërëm am na ci mais Daaru Xudus donc benn kese ñoo ko fi dese muy corniche ak gaar ak Daaru Xudus ñoom ne ñoom ñoo des ci ñuy fay fukki dërëm mais tarif yi ci gaar ci ëpp li ci ëpp léegi 100 francs la ñaata garage ngeen am fii ci sa ci Touba Touba ñu ngi am 86 garage yoo xam ne ñoo nekk biir Touba gi 86 garage am yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci biir commission boobu ma la doon wax ni secteur bu ne da da dañoo xool garage fa toll nanu tollu ñu délégué ñu ñaari nit ñaar ñoon ñu délégué moom lañ boole ba def ko commission bu nekk 22 membre ñu am aussi 11 commission yoo xam ni 22 membres yooyu ñu ngi jóge ci 11 commissions yi loolu lan loolu loolu moo tënk mboolem 86 gares yi nga xam ne mooy daw ci dëkk bi. amagun ngeen ay permis yoo xam ne dañ leen koy jox ngeen koy fii permis. waaw commencé nañ ay carte coché euh, yoo xam ne mairie bi moo koy délivré ak tableau d'immatriculation instant bi boo dee xool plus de vingt 827 cartes génn na ci yoo xam ne commencé nañ di ko distribuer pour nga am carte bi nag il faut nga am euh, photocopie carte d'identité ak ñaari photo ak adresse su garage bi nga ne ak sa numéro téléphone bu fekkee amoon nga plaque dangay ngay da ngay da ngay da dugal numéro plaque bi ci ginnaaw photocopie carte d'identité bi bu dee amagoo plaque léegi da ngay boole photo da ngay boole photocopie bi jënd ñu wutal la carte coché ak ak plaque carte coché yi nag fi mu toll nii mairie moo koy délivré te ba léegi gratuitement lay am mais nag am na délai de délai de boo xam ne buñu ca yeggee des na ko arrêté mais actuellement nag nit ñi ñu ngi commencé di ko wut mais majeure partie bi nag wutagul bu doon ab litre daal mën nañ ni kaar bi sax amagum ko waaye nag luñ annoncé la te lu mënta ñàkk la te li waral ñu koy def mooy gone yi nekk saret bi parce que gone gu am 7 ans gone gu am 9 ans waroon na jàngi waroon na defi leneen nga bàyyi ko mu nekk saret bi te mënoo gën leen cee jëlee ndax lan parce que amuñ amoo amoo am na loo xam ne mënoo ko autorité moo ko man parce que parfois sax ñoom yaakaar naa am nañ arrêté boo xam ni xale bu gis ngay dawa sat dina la jàpp mais nag doonagut loo xam ne dafa mancé ba mën a génne complètement xale ci sar bi waaye xale ci sar bi moom bokk na ci li nga xam ne sa neexuñu ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo yilif borom sar bi ndax gone gu am sept ans mënul ab sar dara la war mooy jàngi tey bu lu suñu borom dimbalee ñu ne ci dëkk bi di liggéey doon ay boromi kër doon nit ñoo xam ne dañoo dañuy daan suñu doole di yóbbu suñu kër di daan suñu doole di ci joxe addiya dafay jaadu ñu organiser wu ba li yoon santaane ci ko war a yorub sar yoon santaane ko ci ko war a yorub oto ñun ñu mën a ñu mën ñu mën a tënku ca yoon woowee moo tax ñu commencé loolu mooy borom sar pour mu dawal il faut moom plaque d'immatriculation boo xam ne mairie bi moo koy identifié jox ko ko am carte coché buy wane ni moom mi il est responsable ba mën a yor saret bi carte coché boobu nag mooy carte mise bi nga xam ne maire bi moo la jox pour nga mën a dawal euh, léegi ku man su ma jëndoon sama saret ñëw bëgg daw ci gaara fan laay jaar. bu fekkee yow da nga am saret bëgg ñëw bokk ci gaar nga dem adhéré da ngay xool garas bi la gën a neex bi nga xam ne xalaat nga ni moo la gën a jege wala moo gën a moo la gën a neex daal yow moom saret bi nga dem adhéré fa am na adhésion yëbuñu am na adhésion yoo xam ne soixante-quinze mille la am na adhésion yoo xam ne cent mille franc la adhésion boobu nag boo ko xasee ba def li nga séq ak garage bi mooy dagg àllarba bu dee ña ngi koy laaj nga di ko fay boo xëyee aussi war a liggéey da ngay da ngay dagg reçu buy wane ni journée bi yëpp ci ngay liggéey am na reçu am na reçu deux cent cinquante boo xam ne toute la journée ci ngay liggéey moom ci ngay boo xasee ba dagg sayee toute la journée ci ngay liggéey bu wàcc jot loolu mooy tarif bi nga xam ne boo duggee ci gaar moom nga ciy bokkee mais gaar si nag bokkuñu adhésion am na adhésion soixante quinze mille am na adhésion cent mille na xam ne soo adhésion àggul sax vingt mille mais nag selon garas ba na mu mel ak dayo ba na mu toll moo war a yi du duñ tolloo waaw euh, léegi ci wàllu euh, sareet yi euh, ndax ci wàllu sante fas yi yéen a ngi ci bàyyi xel ak nan ngeen koy defee boo xoolee loolu arrêté interministériel bi daf koo tëgg arrêté interministériel bi nga xam ni gouvernement bi moo ko génne pour nan lan war a yore sareet loolu sart bi lay wax jëmmi sart bi nu mu war a mel ak jëmmi yëree sart bi nu mu war a mel carrosserie saret bi ak jëmmi saret bi nu mu war a mel loolu euh, arrêté interministériel bi wax na ko wax na aussi itam ci mala bi ngay takk fa mala bi ngay takk bi mala bi dafa war a am carte carnet de santé carnet de santé boo xam ni tey lépp yëpp traitement yi ñu koy defar ci carnet de santé boobu la sukkandiku carnet de santé bi ñëw nañ fi vaccination bi passé li ëpp ci sart bi ne fii ñëpp am carnet de santé carnet sante santé boobu moo lay permettre vaccination jotee nga man koo yóbbu ñu vaccinel la su fekkee dem nga ba ba war a faji saw fas tamit carnet de boobu moom nga yót vétérinaire bi pour mu mën a xam kañ nga gën a traité saw fas ak ci loo ko mujj a traité tu fat ndax fas moom lii war liy wartee fam moom nit ñoo yam ni ngay def boo feebaree faju boo sonnee noppulu loolu la fas war a def fas bu feebaree da nga ko war a yóbbu faji ko bu sonnee da nga ko war a noppal bu amee ay góom nga faj ko di toppatoo yëre yi ne ci kawam ba dara du ko ci gaañ loolu lan wax ni mooy li nga xam ni mooy li mën a yërëm aw fas loolu sax boo ko gisee am na benn ONG boo xam ni ñu gën koo xam ci ONG Brut ba ONG Brut bi nga xam ne ñëw na dugg ci dëkk bi li muy santaane mooy yërmande ci ak jur maanaam na leen def ba yërëm jur gi ginnaaw jur gi dañ koy jariñoo di ci di ci dafa dafa jaadu ñu yor ko ba ku ko gis xam ne jur gii ñu jariñoo yor nañ ko mais yor ak jur te jariñ di ko jariñoo te defaroo ko yow rek lay wàññi wala yow yaa dem ba ñàkk ko te dootoo ko mën a am fii ngeen nekk ci garage bi danoo gis na fas yi fi la saw fi la neefara fi la def lépp ak fas ni muy xeeñe loolu ban matuwaay ngeen ci jëlee. parce que garage bi nag am na benn chef de garage boo xam ne muy Aliou Fall ma nga nele mooy def chaque semaine mu bale ko ba mu set yóbbu ko ci poubelle bi poubelle baa nga ne mais nag li ëpp ci liy indi salte bi dëgg-dëgg sax du fas yi maanaam mooy yi ngay seen nii bâtiment yi ñuy tabax buñ mbalit meeg lépp ñu pousse ko mu dem ci kaw tali bi bokk na ci liy saltel barab bi mais bu doon fas yi dong ak barab bi salte mën na cee bañ fas yi fi la nii saw fi la nii puuf ñu ngi boo radoo boo radoo mu deñ fas yi lenn dinaa la ko xamal fas woo gis muy takk saret surtout suñ fas yi di daw néew na nga leen di romb ñuy nefere ci barab bu buñ taxaw daanaka fas yi ëpp ti nefere li ci ëpp seen seen seen i gétt lañ ko defee mais fas saa soo ko takkee saret muy def activité li ëpp li ciy nefere du bari waaw fas dinay lekk dugub de yaakaar naa fan yi Ousmane Sonko nee na nañu de moom dafa bëgg beñe dugub ñu gis ne ñu ki ndax dugub dafa yokk wala yokku dugub moom ba daaw ba ren yombut daaw ba ren dugub yombut instant yi mu ko waxee moom gisoo ci benn changement yokku changement amul ci dugub dugub moom lépp loo ci mën a wax mënta changé parce que dugub moom 400 450 500 mën na ko koo romb ndax 350 la commencé woon ci biir noor bi fi mu toll lu mu gën a dem gën a jëm nawet day gën a cher waaw ndax moom saa soo gën a jëm nawet rek ñu xëy na ñu dencoon dinañ génn mais ci noor bi sax lay tane ndax ñëpp dinañ génne dugub danañ génne dugub di ko jaay mais bu demee ba nawet dafa am ñoo xam dañ koy denc di ko dunde loolu moo waral muy xaw a cher mais dugub moom actuellement 450 la tool léegi am na lu leen nit ñi di ŋaaññi yéen da ngeen di daw fii di jëm fi nga xam ne moo di jéggi tali bi route nationale bi foofu da ngeen fii baare oto yi ba ñuy nekk Mbàkke nekk jumaa ji ay saret di jàll saret yi kenn leen kii foofu lan ngeen xam nga dëkk moom boo ci dee dugg il faut que mu am ay il faut mu am aussi ay pont yu nit ñi di jéggee ñëpp mënuñu am ci biti dëkk bi ndax ñëpp liñ soxla ci marché bi la ne te ne ci biir marché bi mooy tane nga ne ci arène arène marché bi ndax biti marché bi këri kilifa la jotoon jotoon na noo jël ay xalaat pour génn ñu ñu ne ci biti marché bi mais yàgguñu fa parce que ñun mënuñu nekk lu ci biir marché bi biti marché bi boo fi nekkee tey boo demee ba kër sëñ Abdoulaye Jaxate nga dem kër kër sëñ kër kër kër sëñ que mbooleem njaxate gi ne fi foofa doon place boo xam ne war nañ faa mën a yóbbu ab garage pour di mais biir marché bi nag am na espace boo xam ne fi la garage bi ne fi la garage su saret bi ne donc ñoom fexe nañ ba bin mu mujjee waxtaan ak monsieur le maire waxtaan ak autorité yi ñu may ñu ñu am ñetti jéggikaay ci diggante bi benn jéggikaay bi mooy bii jógee gaar bu ndaw nga xam ne tey boo dee xool bépp saret boo xam ne yaa ngi jóge gaaru su Daaru Musi yaa ngi jóge Mesere yaa ngi jóge Mbaare ak foo mën a jóge soo bëggee ñëw ci biir marché bi bëgg a dem ci geneen wàll ci boor ginnaaw marché wala gaar bu ndaw benn jéggikaay bi dong moo fi ne benn bi rek moo fi ne waaw li tax benn bi ne fi nag mooy lépp lu jege jumaa ji sëriñ bi daf koy tere te yoon yooyu yëpp dañoo sës ci jumaa kon benn jéggikaay bi moo fi ne moo tax fu mu jaar xat waaye bu fekkoon jéggikaay yi bari na fii mën naa bañ a xat mais foo mën a jóge ba ngay dem mesere ba ngay dem mbaar ya ak foo mën a jóge ba mët yaan na benn jéggikaay képp moo fi am mu jégkaay bi nekk ci buntu kër sëñ Mahamadan moo tax jégkaay bi di xat beneen bi ci des boori daaru bi nam la ne beneen bi ci des ma nga ca boori Baye Fall ga waaw xam nga ñetti jégkaay yoo rek lañ ci am te yow jégkaay mun ñu mën ta ñàkk ndax ñi jóge fee fu ñu jaar andi leen ci marché bi te tim mënoo di jël ay sar di ko gaar ci buntu këri kër këri sëriñ léegi sareet yi bu màggal ñëwee di ngeen mën a xam lim bi sareet yi bu nu màggal dikkee non bu màggal moom li fiy teew ci sareet mënoo koo xam parce que côté bu ne la sareet yi toll juróom-ñaar ñu ngi fii ci ci fas fukki junni ak juróom-ñett ñi fukki junni maanaam fukki junni ak ak ak ak ak ak ak juróom-benn ñoo fi ne waaw. waaw 18000 fi bu dee sareetu mbaam ñett junni ak ñetti junni fas fas ñoo fi ne ak juróom-benn téeméer. mooy 18 fukki junni wala ñetti junni. fukki junni. ak ñett. ak ñett waaw ñoo fi nekk ci fas bu dee mbaam fukki junni. ak waaw. rawantewu leen lu bare léegi lan ngeen réalisé ci seen kii bi ngeen di lan ngeen réalisé ci seen daayira bi seen association bi. non réalisation daayira moom mooy ku fi nekku ne saa su weer dee nga dagg àllarba àllarba yooyu la ñuy daje di ci dem di ziare ji ci la ñuy yóbbu sëñ même dimanche bii du ñëw sax daayira subla salaam bi war naa mën a dem ziare ji sëñ Muntaxa fii am na daayira new ga boo xam ne dañuy dem di ziare ji sëñ Muntaxa dañuy def ci ndox mi loolu mooy li nga xam ne moom dasar di def daayira nga. àllarba yooyu laaj yoo xam ne boo ko dajalee da nga koy lenn li da nga koy xaaj yót ko yót ko ki fi nekkal Serigne Touba lenn li nga xaaj ko yóbbu ko ci ndox mi loolu rek mooy relation bi ni dox ak fay bi nu war di fay mairie à chaque fois waaw waaw euh, léegi nu mu tuddati kon euh, fi ñu toll ban jafe-jafe ngeen am yéen ñun moom suñuy jafe-jafe weesuwut ñu fexe ba jàppale nu ci jéggikaay yi nuy jéggi ba waxtu jéggi jotee ñu am élément bu fa boo xam ne dinañu mën a jàppale waxtu yi nga xam ne embouteillage dina am a monté ci barab bu ñu jégee bu ne di bàyyi sar yi ñuy dem di bàyyi oto yi ñuy dem su boobaa bu ñu ko defee ba nono bañ am problème beneen problème bi ñu am mooy alimentation bu cher alimentation bi cher na xont bi cher na xont boobu nga koy wax waaw dañ koy interpellé état ñu ngi ci dox nag ay jéego mais dañuy interpellé état interpellé monsieur le maire mu jàppale nu ban mën a am ab xont ndax xont bi cher na lool ba fi ñu toll nii léeg-léeg da ngay xëy bu wàcc jot soo xontee soo fas jeexal ndax boo xëyee am 6000 fas wi daanaka 4000 yi lay lekk boo amee 5000 1000 francs lay des boo amee 6000 2000 francs lay des xëy na mën naa mën naa mat sa dépasse mën naa bañ a mat sa dépasse mais suñ ñu mënoon a jàppale ban mën a am ay quota ripaas yoo xam ne xëy na ñun suñ association yi wala suñ GIE yi mën nañ koo jot wëlbatiku di ko mën a jaayat ci biir ci biir kuréel gi ku mu gën a yomb ba ban koo mën a jariñoo da ngeen di da ngeen di politique yéen di ngeen politique non képp ku ne ci parce que Sénégal pol addina bi politique yi ko yor. kon seen association bi man mi ngi politique. non politique mënta ñàkk xam li tax politique mënta ñàkk mooy politique ñu bari dañ ko am fu ñu ko jëmale. politique am fa feneen foo xam mën na faa jëm ci beneen sens bi ndax politique ba jariñu jariñ saw askan loolu ayut politique nag di wër di saagaak lu ne nga ci dugg moom boobu politique ñun defuñu ko waaw daan fexe daal ba suñu mbooloo ñu tëye ko ànd ak ñoom di liggéey ba suñu borom defal ñu jàmm. Euh, sareet yi dafa mel ni góor ñi jigéen ñi ñoo ëpp luñ ciy dugg lool lan la am góor ñoo ci loo ci remarqué yow. non suñ côté bii moom góor ak jigéen ci yem suñ côté bii moom góor ak jigéen ak élève moom daanaka ñun ñoo ko yóbbu ndax boo xoolee transport boor bi dafa néew oto ne bu bu yóbbu élèves yi wala oto ne bu yóbbu clients yi mais clients yi moom ñun attitude bépp lañ yor ñun yor am nañ clients yu góor am nañ clients yu jigéen am élève am nañ xale yu ndaw lépp am nañ ko. bi ñaata lay transporter ci ay nit. lay jël. dix personnes rek lay jël waaw cinq côté bi cinq côté bi moom rek lay jël du ko romb. Eh, nit ñi ñu ngi jàmbat ne ni ngeen di dóore sareet fas yi daa métti di dóore ci seen i awra yeeg yooyu. yooyu moom ku xamut fas rek koy def fas bu dee jar fas bu dee jar sept cent mille fas dem ba jar sept cent mille da jar huit cent mille képp ko yàq da nga xamut koo romb muy dóoru fas nu dul noonu xamal ni moomu ko ab siiru la buñ ko jox rek waaye ki jëm ki moom fas wi di ko xont xam ne lu ci def lu ci lu ci am moo ko ci def dana ko yërëm ndax bu yàqoo yombatut am fas moom. buy jar 500000 600 700 ba 800000 képp ku ko yor di nga ko foog te fas nag suñu borom def na ci loo xam ne képp ku ko toroxal torox moo tax ñu bari war na noo moytu di toroxal aw fas ndax bokkut ci lu yàlla santaane ndax yaa moom yéen a yem boo ko boo ko ter boo ko teralee rek tedd waaye saa soo ko toroxalee rek doo avancé kon ku ko yor ku ne war nga ko bàyyi xel sëñ Ousmane ñu ngi lay sant baax di la gërëm di lay jox daje ci beneen jotaay waaw baax na jërëjëf ñu ngi leen di sant baax di sant nag képp koo xam ne yàlla dogal na yor nga làpp di ko dawal ak foo mën a ne ci dëkk bi ñu ngi leen di sant di sant njaatige yi nga xam ne ñoo jiite sar bi di sant mairie bi nga xam ne mi ngi ñuy jàppale ci suñ action yi ñuy def yëpp ñu ngi ñu ci jàppale surtout monsieur le maire di sant nag képp koo xam ne yàlla dogal na actuellement suñ kuréel gi ñu yor bokk nga ci ñu ko yilif ndax kuréel gi ñeenti njit doo nga ci ne muy cam mi toogoon fi léegi ak